Penda Ba. waaw ma laaj la. yàgg caat ku mag. caat waaw. caat caat caat caat. papa. papa. taw la la. papa ma caat ku mag. benn waa rawatoo mooy yow. ah papa yow yaa ngi xam. donc xam dañuy déglu ba pare xamuñ sax ku mag. mënoon na ngeen bañ a jug mënoon na ngeen àbb rek. yaay yaay. naam. kawoon kawoon. yaay. yaay ma taat kuma. waaw loolu dafa jaral la. caat ma la ah. ah. caat dugg na de. sama yaay wàññi dëgg parce que caata ah, ngi te man fekkee naa ko. Eh. waaw sama maam mu ngi xaalis xëy bu ndaw yi jënd. tuuti bu tuuti xëy bu tuuti yi jënd. moo tax caat mel ni pitax. waay waay te itam mu ndaw kay. waaye may ma ko. maye kan. caat. caat. mu koy ndogoo doom. mu koy ndogoo. déedéet da kay nax. xaw ma ñu def. doo dama ñu dafa néeg. suñu ko ba pare rek. bu suk suk. nga suk suk. déedéet da kay nax. Ah. bu nga neexoon doomu indi seen kër gi. gi. am na rek am na naan ah am na caag tamit. tey jii kay <laughs> yow sama. yaa ngi dem dafa nekk. waaw. yow it dafay dafay. yu bëri. xam nga dafa nekk. tey jii kay ndax dafa defee dégg nga. waaw. tey jii kay ndax. yow ak naa ma ca yow sama copain da koy may da koy may caag. dầu vô jon yaa ñàkk fayda man nga ne weer ko 30 jours yéen doo ci am sax benn jour eh eh sama yam de sama yam dégg bàyyi ma yow ñàkk nga fayda ita nga mu benn fuya ni dégg am tigi am xëy eh man duma sama yam yaa dégg bàyyi ma yow katu katu fii eh yi moo tax yi moo tax ñu ñàkk ay toogee fii waay yow ñàkk fayda tooy te tat ñi daan xëy yow yaay moo wax mu ne ku ko mën def ko ku ko mënul bàyyi ko yekk yeen naan yeen bu yee yàq waaye ba yéeg waxu yi yekk yi naan ak yi yàq yaay dëgg nit da nga am xëy koy gii yow wayu ya yow da ngaa amee yi sëy man damaa ba muy damay wàccu rek damay wàccu rek sa papa moom xam na ni dafa feebar muy forcé yooyu forcé waaye yow naa yooyu kenn tegu yow. eh ba mu jàll. tegal bitéel jox ko jox ko bitéel. billaay yow yaa ñàkk donc. comme te yow da ngaa mën doo woor léegi moom mi na tëddi woor te doo ko bàyyi mu woor koora. billaay yow fee yaa bon. yow yaa bon. yaay. dimbali ma laa la nga naan yaayee. taabu taawee ko bi nga doon ñàkk jom bay bëgg a dee mënuma si yow dara yow moom. xam nga laa bëgg nga xam gis kii fu mu toogati bu ma gis nga topp dinaa la dóor ba ngay bëgg a dee. kon ngay bëgg a yor. yow yow yow neexoon ma wóor na yow yaa neexoon. di si rëb bi nga ko rote. waaw si biir yaa ko rote kay. maa wóor na. eh yow yooyu nan. yow dégg nga maam sa xit yi beeg taaw beeg ñor di beeg guddi bi yëpp ma yaakaar sa xitee mu dee di nga ko mbéj baa di nga ko def leneen ndekete fii nga mujj ci naarum ndox. yaa yow bii yaay sa technique neexuma yow yaay yow yow bii yaay yaa yaa yow yow man xaw ma ban façon nit nga yaa. ngay tëdd loolu wax boo xëyee da ngay war wala war war. loolu daal la kon waaye damaa am. wala trois heures gën dëgg wala nga fas yéene toog sa kóol. yàqu na ba pare. papa. bon de ah doom de day de bon de kon ni nga ko jëmale. papa yi nga ma boy yow xam. papa bànqi yow suñu yaay yaa ngi toon. sanday daa baax. te papa yi tam sanday. yéen ñu tax nga may wax sanday. waaw yow yi ngay sam papa ba ñu saal. waaw boo naa dëgg waaw doo wàcce woon sanday. Mbaa wala ma wax sa ndey. yow sa yow sa bàyyi la tey tax bi kon. waaw bu ma wax sa bàyyi de bu ma waxee sa bàyyi dama wax sa bàyyi de. yow sa bàyyi léegi ngay fay toog. yow tam sa bàyyi sa bàyyi ngay fay. waaw benn baa benn baa benn baa ñu yàq. ah defe naa ne ba pare ca ma taat ma tëddee ko. moom yëpp a ñu doon ba benn. 3250. eh, eh, eh. papa eh, yow

est revenu, ça va revenir, c'est pas vrai. Il y a des recettes que nous